ñi jógee ba frontière Guinée bisawoo ak Guinée Conakry ñi jóge ba frontière Mauritanie ñi jógee ba Casamance muy 46 départements yoo xam ne tey teew nañ fii ci réunion bi réunion bi nag du mitin ndax wax naa ko léegi nee naa meeting mu modèle xajul stade waaye assemblée générale bu mel nii tey. nga xam ne ñëpp ngi fi nekk jóge ci 46 départements yi ca ku ci ne yàgg liggéey ci parti bi lu mat fukki at benn parti amu ko Sénégal ca loolu kat modèle prouvé na ko parce que bu ngeen ko seetloo bi ñu créer parti bi ba léegi war na am fukki at ak juróom ca 2014 suñu parti rek moo dem élection ca àndul ak coalition gañe ay mairie gañe ay département gañu ay conseils municipaux liggéey boobu ba tey. présence su ñooñu wone na ne liggéey boobu tey mi ngi fi. depuis lors ñu bari ñu ngi naan ah modèle kat day nelaw waaye juum nañu ndax ñun ñi ngi liggéey boobu ba léegi délégation partie bi nga xam ne Serigne Khadim Mbacké ak Cheikh Niang ak ñen àndaloon wër nañu Sénégal dama ciy profité nag pour remercier leen ci seen liggéey bu rafet boobu muy Serigne Khadim Mbacké ak Cheikh Niang ak seen équipe. ndax bi ñu ñëwee dem nañ ci cinq cent communes dem ci quarante six départements commune bu ñu dem dem nañu ca mairie ba jël suñuy militants jël suñuy élus locaux ñu bindal ñu kayit ñu indi ko ñu ngi ci rapport boo xam ne juróom-ñetti téeméeri xët la rapport boobu ci lañu sukkandiku tey pour convoquer ñeent fukki département ak juróom-benn yi composé Sénégal nga xam ne am na ñu mel ne ñoom Parumba am na ñeneen ñoo xam ne bii ñaari fan ngi ñuy voyage pour ñëw fekke lii loolu nag volonté la loolu wane na ne parti model ànd ñoo moom ngir xaalis wala ngir ger wala ngir laal mais gëm-gëm la loolu nag duñ ci am bégte ndax réew mi tey mi ngi ci guta ndax homme politique yi seen waxin seen defin seen jëfin Sénégal yi xeeb nañ ko tey loolee réew moo xam ne mi ñu baax ñépp ñu ngi fi tëdd réew moo xam ne mii Afrique yépp duñu leen a considéré bu ñu demee ba di def na ay gone loolu war nañoo seetaat suñu bopp modèle nag dafa taxaw ngir proposer Sénégalais yi beneen option boo xam ne bii du option xuloo du option xeex du option xëccoo mais mooy option bi nga xam ne du ñoo bëgg àndandoo jigéen ñi maa ngi ciy profité pour féliciter leen ndax seen taxawaay rafet na ànd ak xale yi ndax seen taxawaay rafet na pour ñu liggéey ngir réew mi am jàmm ngir réew mi am teraanga ba li nga xam ne ñëpp a ngi koy tudd ci àdduna muy gaz bi ak bi ngeen mën koo jariñoo yéen ak seeni doom ñi ngi leen di yëgal ne nag bu leen yox-yoxi bu leen tiit li ñu bëgg bu soobee yàlla yàlla dinañu ko defal waaye politique dama koy wax xale yi ñuy ree léeg-léeg dama leen ne du du du xër-xëri du njëkkante politique dafa nekk loo xam ne xel lañ koy defee waaye li ci ëpp mooy nga gëm suñu borom li muy def yàlla lu mu dogal ci nit kenn mënu koo tere kon ñun li yàlla dogal ci ñun xam na ne yàlla dina ko def waaye nañ ko ànd ak yar ak teggin kon maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal di leen wax ne nag liggéey bi mi ngi doog ak tàmbali yéen ñi nga xam ne yéenay délégation yu jóge Sénégal dama bëgg bu ngeen delloo ci base bi ngeen jëlaat département bu ne na ngeen convoqué seeni commune ngeen waxtaan ak ñoom ñu préparé liggéeyu parenage bi préparer tournée nationale parti bi préparer combat futur ndax kat ku bëgg a dem guerre da war a fagaru kon na ngeen liggéey ca bàyyi xëccoo bàyyi ŋaayoo bàyyi siisante xam ne modèle ñëpp a ko moom maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di xam ne danaa leen gën a déglu ngir ànd ak yéen ngir liggéey bi jëm kanam wassalaam